père dafa am loo xamante ni daf ñu jaaxal. Mm-hmm. mooy dañ doon jàmbat ci làmb. Mm-hmm. loo xamante ni euh, mooy suñu papa Gaston. Mm-hmm. ñu ko doon jàmbat ñu ci bari chaque jour ñu ne père Gaston na ñëwaat ci làmb ñëwaatam ci làmb am na njariñ na ñëwaat ci làmb na ci làmb ba yàlla dogal père Gaston moomu ñëwaat ci làmb. waaye ñëwin bi dafa mel ni dafa am coppeeku bu ci am coppeeku bi ci am mooy père Gaston ñëw na ci làmb. organiser combat bu mag dox ci diggante Lac de ak. Euh, Eumeu Sène ak Eumeu Sène mhm. mais dafa am lu ñu ci gis mooy presse bi woo nañ leen bi combat bi taxawee. pour mhm. ñëpp ñëw ànd. Mhm. liggéey jël face to face Eumeu Sène ak la de mais dem nañ ba jimmi jamono ñu jékki-jékki na presse bi kenn du dugg si ci làmb ñëw filmer làmb ji nga wala nga wane làmb ji euh, promoteur taxawaay boobu la war a taxaw ci presse. waaw c'est que xam nga presse. Euh, ak ak organisateur. Hmm. mënuñoo tàggoo. Hmm. parce que presse bi bu amul lu mu publicité. Hmm. liggéeyam du dox. dëgg la waaye promoteur bi tam bu ñu koy siiwalul ba si bëree. siiwalul marchandise am du dox. kon ñoom ñaar la dañu war a ànd ba parce que kenn mu rotte ne mën a bàyyi boromam. waaw parce que euh, xool xam ne kii li muy tukki da ciy wut dara. waaw kee itam lu muy tamit def ci wut dara mais fi wut dañu waroon kenn ku nekk nag am loo yéwéne sa morom. Hmm. waaye bu fekkee ne kii organiser laa bay dem na ba xool ne yéen li ngeen di wut kat mën naa ko wut dem wut samay bopp hmm. kii hmm. comme sama comme suñu kii bi ay site la parce que ñoom li ñuy dépense ci làmb ji dafa bari. li ñu fay mbëri day bari li ñuy dépense ci làmb ji bari dégg nga ñu wutaat beneen boo xam ne bii dañ leen di jéem a wut jéem a euh, xañ pour yor defal ko seen bopp. Hmm. defal ko seen bopp nag mooy jafe nag. Hmm. defal ko seen bopp. Hmm. mën nañoo am ñeneen waaye bu gënoon a yaatu dégg nga ñu am loo xam ne li sax dina ah wasaare kat mën naa ñëw waaye nangam lay joxe. wala kii kat nangam lay joxe. ba wala nangam lay joxe. bu boobaa ñooñu nga dugal leen ñoom it comme seen njëriñ a ngi ci ñu am lu ñu dugal yéen a am lu ñu dugal. su ko defee li olof di wax bu sulu yooyu bu gër dem ak neen. waaw Mm. mais boo ñëwee rek filmé dem yóbbu filmé dem yóbbu mm. wut say bi am sa sa taranga mm. moom mi tëgg làmb ji amu ci dara loolu su ko defee tamit bu yàggee dégg nga day bàyyi làmb ji waaw parce que làmb ji muy tëgg nii tamit saraxewu ko da ci wut mais li ñu jaaxal mooy euh, loolu nag père li yi ñëpp njortoon di ko di ko di ko mu jaaxal leen mooy dañ doon wax ni làmb ji huis clos lañ koy def la de Guiers Eumeu Sène ñu dem ba mujj gi jëmmi jamono huis kilo boobu amul pour man kiy tëgg làmb di def làmb wii ku la xanaa séentootu ci euh, nu mu ciy gagné mais am na ay partenaires yoo xamante ne mun nañ ko accompagner ba mu mun kee def mu ko bëggee. waaw ka accompagnement bi moom ci sama yaakaaru bopp laa mun la ñàkk parce que nit ki bu fekkee ne dafa jël ay millions. def ko ci làmb. da cee bëgg dara. Hmm. waaye jëlul millions yi mu def ci poosam rek pour sànni pour fay leen ngeen dem toog mu faxasu dem toog déedéet da ciy wut dara. Hmm. la mu cee wut bu ko ci xoolee am na xam naa am na fu mu jaar ba xam ne bi xam na ne su ko defee dina ci am dara. waaw looloo ko ciy dugal mais bu fekkee ne xool na ne woon du ci am dara yorul ay millions yu muy sànni. maa la wax lii. yorul machine buy defar xaaj boo xam day defar rek liggéey sànni déedéet. waaw da ci liggéey pour am ci dara. am dara boo mu ci am dara nag moo ko moo koy moo moo tax muy jafeel mbir mi. moo tax muy ja jéem a jafeel mbir mi. man nag père li ma ci gis mooy dafa mel ni ñàkk a respecté bi. Euh, daf ci bokk parce que gis naa ni saa su ne bu promoteur tëggee làmb yu mel nii presse bi dañ koy jànkonteel bu ñuy dugg ci stade bi dañuy am problème dugg bu ñuy génn dañuy am problème du génn boo duggee ci stade bi ni nga bëgg a defee sa liggéey sax doo ko defee sa liggéey dinaa la yemal fii wutal la limite bul dem fii bul jaar foofu loolu taxawaay boobu promoteur ak presse lan moo tax saa su ne rek boo organiser rek faw nga mën a wane ni man maa organiser man maa leen ëpp doole maa leen féete kaw te faw ma néewal leen doole ba xam ko waaw sama gis-gis ci foofu jiri xamu nga mooy lan. Hmm. presse bi ni ñu war a ànd la ñu àndewul noonu. dëgg la Ndiaye. waaye bu fekkoon nañu ànd nekk benn di xàccandoo di tegandoo. Hmm. kon tey ñëpp leen di soxla parce que ku ci bëgg sa marchandise siiw. Hmm. dem ci monde bi yëpp yëg fenn ñëpp yëg la dugg ci télé dugg sa téléphone seetu yëpp. presse bi rek ko yor. dëgg la waaw léegi nag ñooñu bu fekkee ne léegi danga nga leen suufeel wala da nga leen teg tegoo leen fenn. ñoom dañoo war a xam seen bopp. ñoom ñoo war a xam fan seen taxawaayu bopp. waaye bu ko ci xamul sa bopp tamit waaw ah, ku bindoo ni ndënd ñu tëggal ni ndënd. tëggal ñaari boor dëgg la. waaw ku tëggal ni ku bindoo ni tama ñu tëggal ni tama rek. waaw ah, loolu waaye boo amee suñu foofu ngeen àndoon nekk benn. Hmm. yéen ñëpp kenn kenn ku ne xam ne wërsëgam rek lay lekk ci hmm. am lañu def ak yéen promoteur bi tamit dafa am fenn foo xam ne droit am la. Hmm. mooy day tëgg dafa bëgg dara moom waaw bu ñëwee comme ni ma la wax sànq rek nga filmé dem yóbbu duñ ci am dara. ñoom it dañuy dem ba loolu dañ koy jéem a bañ. waaw mu ngi mel ni nga yor télévision boo xam ne da ñëw rek daal di ci filmer filmer filmer dem teg sa kii am say vie dem naa nga am say am say euh, ñëpp maanaam sa télé dox dégg te moom mi tëgg combat ba amu ci dara. Hmm. léegi bu yàggee day xolam day hmm. léegi Père yow boo doon tëgg làmp hmm. nga bëgg site bu ñëw jox la. Euh, koom-koom boo tee euh, d'accord site yi mën nañu d'accord jox la mais promotion combat bi xanaa bu la ko site yi di defal da nga leen di mooy yoon. promotion bu ma ko defee man du ma def sa promotion te fayoo ma. Mhm. loolu mooy yoon. Mhm. liggéey free moo amul boo demee ci américain yi wala dara yooyu liggéey free moo amul. Mhm. waaw mool sax bu ñu la ko déplacé danga nga leen di fay. nit ki ngay liggéeyal di def dara da nga ko war a jox dara. waaye ñoo rek yéen dama daal filmé rek dem publicité publicité publicité rek bëgg see kii dox te te ba joxuñu la dara ah yéen ko nangu. mais bu ngeen ko nangoo kay dëgg dëgg dëgg. mooy li ma wax rek moom laay répété waat. Hmm. mooy tukut bi doon tabax yi tëggal tabax. Hmm. yéen a profité yëpp ku ci hmm. nekk yàkkamti ngaa dem ba filmer sa pour pour bañ ñu fayal ak ñàkk a yëpp da ngay da ngay dem. buñ boo woon buñ ne woon dañuy woo open press tey jii. yéen ñëpp kenn ku nekk toog sa kër kuy kuy wane kuy wañal kuy wane. kenn ah, waaw mais fi ne kenn kenn du fa xaj. buñ ne tey jii diwa ngay dem open press am tey kenn du fa xaj. internet yëppay dem. ñëppay dem. Mm-hmm. jëkkante nag bekkuloo yu mel ni cent et quelque naan fi mu teg mm-hmm. waaw loo ci man dara waaw ah, léegi promoteur bi tam noonu lay def rek mm-hmm. yow kay li mu bëggoon a jafe li mu bëggoon li wax yomboon ci li jafe ci moom nga ñëw yombal ko ko lu muy wax dara ah dara ah bëggoon a ma bëggoon a dem kaaba nga ma màkk kaaba gi ñëw tegu sawet foo jëmati ah, fenn voilà loolu rek la jërëjëf Ndiaye loolu rek la wax ji leer na trop ah, euh, may xamal suñu mbokk internet yi rek nii dafa am loo xamante ni saa su dañ koy partager ak yéen dañuy bëgg saa su ne rek seen mbégte doon suñu bànneex bu ñuy sañoon combat bale am arène nationale dox ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu seen ngeen seetaan ko ci wasaare làmb waaye nag ab gor doo xaar ba ñuy seppi sa loxo ci ndab li parce que dégg ngeen li nga xamante ne suñu papa Gaston wax na ko moom moo organiser bisam moo ci def xaalisam moom moo tëgg làmbam moo ne benn site internet du ñëw waaye am na leneen lu mu ci teg mooy ku dajeeg mbër ci ci tali bi wala ci mbedd mi loolu boo ko jëlee yow yaa xam wax la nag boo xamante ni nit ku nekk ful la yow yaa koy amal sa bopp ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk internet bi euh, lenn nag xam naa ne ñaar benn bii dinaa ko nangu ci suma àdduna wala ñaari baat mooy bàyyi ji li man la naam nga ne ma maa la mag maa la ëpp xaalis loolu nangu naa ko mais ful la kenn ëpp ma ko ci àdduna parce damay jàpp ni rek képp koo xamante ne yaa ngi koy roy wala yaa ngi koy topp wala yaa ngi koy bëgg rek daa am yu la neex ci ñoom mooy fulla ak fayda ak jom ak dëggu bi nga xamante ne Père Birahim saa yu mooy toogee di waxtaan ci ay waxam loolu dafay bokk ci li ma neex ci moom may wax rek mbokk internet yi ni wasaare làmb duñ fa ñëw tey duñ fa ñëw suba ndax vraiment ay borom jom ñoo fi nekk ay borom fit ñoo fi nekk ay borom fulla ñoo fi nekk làmb tolloon na ci ay jafe-jafe yoo xamante ni suñu papa papa Abdou Fall rek lañ doon gis mu akan mu mu ne wanee ni làmb Aziz Ndiaye dem na suñu papa Gaston dem na waaye dinaa fexe ba tëgg mbër yi ba képp koo xamante ni da nga doon jàpp ni Gaston ak Aziz Ndiaye mënoon nañoo yóbbu làmb seen manquement boobu ci làmb du feeñ tey loolu gis nañ ko ba suñu papa Gaston bi mu ñëwaatee xar kanam googu la wane ci presse bi xëy na nag moom mooy suñu baay suñu kilifa la moom moo war a taxawee taxawaay ay mais xamante ni yaa ngi liggéey ci presse képp koo xamante ni yaa ngi taxawaay ci presse fulla googu war nga ko mën a amal sa bopp war ngaa mën a xaar ñu gën leen a jox cër bi nga xamante ne am ngeen ko gëdd bi nga xamante ne am ngeen ko ci làmb wolof na def na lu duuf ci nag li xajandoowul ci cin bi li ñu buggoon wax yëpp mënuñu ko wax waaye am na lu ñuy dégg ni am nañ ñoo xamante ni financé nañ làmb ji def nañ ci seen xaalis wala dugal nañ ci xaalis bu bëree bëri ñooñu nag ñu ngi ñaan bu fekkee état la nañu génn leeral ko parce que bëgg nañoo xam xaalis bi ñuy dégg jugee ci réew mi dellu ci promoteurs yi ci yan promoteur la dem ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Père Birahim ma lay jëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf li nga wax de leer na nañ. Hmm. Euh, médium kala mag rek koy fajal boppam. Hmm. waaw parce que mooy li ma la wax rek soo fekkee ne nit ki moom boole na la ci biram hmm. ah nga ñëw bokk bu fekkee ne léegi boole ci la ci moom moo mooy géreel boppam. parce que moo dépensé xaalisam moo génne ah nga toog si tànn ko rek. Hmm. waaw. Hmm. seet seet xëy na li lii tamit du ñëpp koy def. Hmm. am na ñoo xam ne xëy na buñ jógee ko dinañ yaatal ñëpp. mais jot na nag. yéen inter yéen site internet yi ngeen toog nag di waxtaan. dëgg la. waaw seen internet yëpp formé benn groupe. formé benn association sax bu dëgër. boo xam ne bii nag dañuy toog nag waxtaan seet nag léegi ni ngeen di doxalee moo xam ne loo xam ne yéen ñëpp. tey jii da ngeen war a ànd nekk ku ñëw rek war cee bokk. am nañ benn groupe sax boo xamante ni association des des reporters la la tudd. Hmm. mais xale yu bare bari ñu nga fa. waaw bokk ci. Hmm. nekk su ko defee nag lu ngeen def yëgoo ko. kenn bañ a trahir nag. Hmm. kenn koo xam ne kii ne waaw fii dem ba fari yolle ku dugg ci leen. loolu tamit day yàq mbooloo jërëjëf Ndiaye. waaw day yàq naa nga ba pare dellu ci ginnaaw rocciku. yoolu moom du dem. kon nag li am solo ba am solo mooy àndandoo rek. waaw su ngeen ko defee làmb ji parce que làmb ginnaaw gee yaatu. làmb ñëpp ci am. jaaykatu gerte ba dana ci jaay. Hmm. jaaykatu sandwich ba dana jaay. Hmm. dégg nga li ma la jaaykatu ndox ma dana jaay. Hmm. jaaykatu café yi gis nga ko. ak sedd bi café gi dara du tag sedd bi café gi da ngay naan. lépp ma ne tu làmb moom. la mbir la moo xam ne bu xasee am. lu bare bare bare ci dëkk bi day commencé dox. waaw léegi mbër yi am tournée dégg nga ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñoom Eumeu Sène ñoom Lac de Guiers dégg nga defar ay t-shirt yoo xam ne seen kii ci ne seen fans yi di ko jënd. Mm-hmm. ah ku nekk am sa lugu bopp. Mm-hmm. ah ñoom booy kayre mi kii booy jën. Mm-hmm. ak ñoom xam nga ak combat boobu. moom ñoo xam waaye ñoom ñoo xam nga tey léegi liggéey la boo xam ne bi kenn ku nekk mën nga ci gis sa bopp. kon yaakaar naa war nañ ko mën a yaatal. ba mu yaatu ba xam ne ku ne gis sa bopp. te kenn ku nekk di nga ci am la nga ci war a am. waaw. man daal noonu laa gisee daal. Hmm. yéen daal jot na nag ngeen ànd nekk benn. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. Hmm. Euh, mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko. Hmm. ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.